te bu baax a baax a baax maire yi ak président conseil départemental centre président UAM UAM euh, AMS ak UAL ADS agence euh, non association des départements du Sénégal ak l'union des associations des élus territoriaux ak association des maires du Sénégal ma sant aussi ñi jiite association ci xalaat bu rafet bi ñu am ak la chambre des élus ak les élus de Benno Bokk Yaakaar de la grande majorité de la de la majorité présidentielle. ma sant la nag bu baax ndax lii da ngeen ko sàkku si jamono ju xat waaye wax ngeen ko man dama jàpp ne maire ci politique dafa am signification parce que yéenay les représentants du peuple à la base ñi fi nekk di wax. waxuñ si turu kenn représenté wuñu dara représenté rien di tout parce que boo bëggee représenté dara da ngay dem fi ñuy wootee nga def sa liste ñu ñu fal la bu ñu la falulee au nom de quel peuple tu parles au nom de qui tu vas donc man dama jox cër maire wala président conseil un néli wala député parce que da ngeen dem compétir gagner yor ndomb tànk yor kaddu askan wi donc ñooñu bu ñu ma soxlaa te yàlla def tey ngeen am majorité boo xam ne amul natable ci Sénégal xam nga fi coow li moo baree dañu dem élection maire yi nit ñi di xëccoo suñu biir c'est normal parce que mbir la moo xam ne ku ne dafa bëgg a falu donc résultat ya ciy génn bu ñu ko bëggee projeté ci présidentielle kooku ñàkk xam-xam la pare pour les législatives parce que ay liste yu bare génn nañu suñu biir man mi joxe naa ay liste man mi jiite parti bi maa fay benn caution léeg-léeg bu ma xam ne arbitrage bi dëgër na mën a yow dama jël bi nga dem def naa ko Kolda doo ko feneen ak feneen ak feneen ak ñii sax ak feneen donc loolu bu ñu ci bëggee am lecture c'est que on ne comprend pas les dynamiques mais li wóor mooy majorité te liggéey di ko joxe yàlla dënk nañu ko waaye nag majorité lu mu am am solo su amul pas-pas amul unité du am solo su boobaa bu yaafus jógee sax mën na la perturber loolu moom mat a moytu mais bu ñu jàppee unité bi ni ngeen ko waxee tey ngeen gëm fi ñu jëm taxaw nekk benn ak lu mënti am victoire rek ngeen di dégg victoire rek ngeen di dégg donc loolu nag moom moom laa leen di dënk l'unité et ñu éviter division diw la diw la gis nañ ne diviser on perd faut pas se faire d'illusion hein on est en régime présidentiel ça veut dire que président bu fi ñëw bu ko neexee suba mu tas mairie yëpp décret lay jël rek joxe benn exemple wax telle raison nangam nangam mu tas ko mu jeex tas assemblée na tas lépp c'est comme ça ça se passe faut pas faire d'illusion donc président ngeen di mën a fal mu jàll jàll lañu si des ñëpp donc pour loolu nag il faut éviter tout ce qui peut nous diviser ensuite il faut nit ñu am lucidité lucidité mooy ku ne war nga mën bëgg c'est normal sa légitime waaye nag ku ne na nga waxtaan ak sa biir sa bopp xool ndax war nga mën a taxaw ak nu situation yi mën demee wala war nga mën def loo xam ne dana yàqal say ñooñ